ñu ngi leen du nuy bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm te ko sàkku ci mbokk yi comme ni ñu koy defee bés bu jot ñu ngi géejawaay notaire c'est le grand champion euh, euh, Maguette Seck ngir waxtaan ak moom ci lu bare bari ci biir làmbu ak ci face à bi nga xam ni xewoon na démb foofu ci TFM doxon ci digënté Tapha Tine ak ki nga xamné tay mom modi moo Balla Gaye numéro 2 ñu jëm nak le 21 juillet inshallah combat bobu nekk combat bu reuy bo xam nit ñi ni ñu koy xaar wa géej way fi mu ci préparation yi ndax ñaari combat lañuy préparer préparé Sa Thiès mois de mai muy le 5 mai digënté mak ëmm sen Tapha mois de juillet le 21 juillet inshallah digënté mak ak ñu nuyu ko mom maget euh ñu nuyu ko bu baax bay ko mu nuyu mbokk internet yu ko suivre. waaw ma ngi nuyu aduna di ziar ñep di bëggee ñep dila la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa hmm wa di ñaan senegal yalla na fi jamm yalla na fi jamm sax quoi. Mhm. di ko ñaanal bépp doomu adama wa di bëggee ñëpp di ziar ñëpp di wax ni wali sek ñi ngi lay jaali sa yaay. hmm dila wax ni la yalla na do quoi. inshallah yaay ñak waajur metti na trop. Mhm. mais nak suñ borom mom luko soob rek lay def. Mhm. waaw lu neex rek waaw mhm. di ko ñaanal fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge amiin incha allah jaay Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam incha allah waaw di bëggee ñëpp eh, suñu doomi réew itam maa ngi la gis nga eh, sol maillot Tottenham wala sax mhm. blouson Tottenham suñu doomi réew ñoom ñu ngi Côte d'Ivoire di def eh, compétition bu mag muy Coupe d'Afrique lan nga leen di wax waaw di leen ñaanal yàlla na leen yàlla musal si cat rek ak musiba waaw yàlla na leen yàlla sàmm mhm. ni ñu commencé rek yàlla bu mu dakk ci kàttanu yàlla loolu la ñuy ñaan quoi di ñaan sept matchs rek suñ borom suturaal ñu si ba yëpp ñu am si ndam. Mhm. ci kàttanu yàlla. gars yi dañoo xaw a ragal naari quoi gars yi. ay Maroc ak ay Égypte ku ma siy ragal. ok Sénégal amu ku ma koy ragalal. ci football amul. amul de. waaw hmm. ah, waaw. mais mën ngaa gis Sénégal parce que Sénégal mu gën a football de day gën a yéeg. waaw waaw équipe bi hmm. ko attan. Hmm. Sénégal footballam yàlla ñu yàlla fal cat daal. ok mës ngaa mës gis Sénégal bu mel nii ci ci ci ci compétition. ci compétition waaw Sénégal. Sénégal bu farloo nii ci compétition Sénégal Sénégal boo passé 2002 ba léegi. Mhm. Sénégal day gën a évoluer rek ci football. ok waaw di ko ñaanal nag di leen ñaanal rek. Mhm. parce que gaal gi moom ñun ñëpp ko bokk. nañ ko mhm. àndandoo joow ko rek. waaw ku si nekk fa nga toog loo am ci ñaan ngay indi ku si nekk fa nga toog loo xam ci lu baax nga wax ko. Hmm. waaw yaa yàlla may leen ay ndam ndam rek. ok ku ñu war a taseel suñu troisième mas. troisième mas Guinée la ñu wax. Guinée ban Guinée la. ah xaw ma ban gina la Guinée daal Guinée Equatoriale xaw ma Guinée Bissau. Guinée Guinée. Guinée bii nekk fii la Sénégal. waaw. waaw boobu boobu la ñuy dajala. mais boobu ban la mais ñun ñoo fi dëkk ñun ñun ñaar. waaw mais Guinée xamoo leen ban la. Guinée boobu xaw ma ko. laa jógee mu ne ma xaw ma Equatoriale di ma wax yu kenn xamul. Guinée Conakry la kon. <laughs> ah ok mhm. tur beeg nga ok am na solo. ñu ñëw ci làmb ji. ñu jàpp bis le 21 juillet incha allah muy diggante Balla Gaye numéro 2 Tapha Tine. Mhm. mais balaa boobu damay ñëw ci taxawaayu Alburaax. Mhm. ñoom Baye Ndiaye. ndax dañu tëgg ñetti weer yu tegaloo. mois de mais mois de juin juillet. gannaaw bu koor gi jeexee. Euh, naka nga jàngale taxawaayu Alburaax jamono ji. ci waaw Alburaax mooy li ma si waxoon keroog rek laa siy waxaat. Alburaax moom. fi mu tooy nii moom dañoo dañoo dundalaat làmb quoi daa am foo nouveau boo xamante ni dañ fa yóbbaat làmb te nouveau boobu nekk nouveau boo xamante ni nouveau bu professionnel la quoi mhm, mhm. parce que làmb moom xam nga bu avancé rek mhm. Sénégal lépp day avancé parce que làmb li ci li ci li ci war a li ciy dund dafa bëri jaakatu gerte bi jaakatu mbaxana bi jaakatu tiset bi kon dañoo war a ñaan làmb di évoluer quoi làmb di dox te ñoom ñu ngi si daal Mm-hmm. waaw di leen ñaan yàlla nañ eggaleeg jàmm waa di ñaanal Balla Gaye 2 yàlla may ko ndam. Mm-hmm. waaw ok def nañu keroog face to face. Mm-hmm. seen combat boobu loo ci loo loo ci loo ma si jàngal. loo ma si ban jàng nga ciy def. Sa Thiès Sa Thiès Eumeu Sène. balaa ñu tafaatin ak Sa moom xam nga mën na mën naa composé ku nekk. parce que nit la koo xamante ni xam nga ku yaru la. ku bandi la. waaw boko indilé yar mën na la indil yar ta téwul bu lamb jaa day metti mhm. soko indilé indilee mën na la indil lolu ta téwul li nga bëgg la lay fekk si la bo xamanteni xam nga man jikom neex na ma dal ok waaw. yow mhm. euh, diggante moom Eumeu sen lan nga ci wax. waaw diggante moom sen lamb la jo xamanteni ne sen ko may sens. Mhm. ñëw confirmer wana wana bopam pour yegg si kaw. diko ñaan rek yalla na egg ci kaw ak jam non la démé mais gën nañ ko may sens ah, tay ñu war a may sens pour mu sentu fi mbeuri magi nek wala fi beutam fi beutam nek wa non Sa Thiès moom la si géej way fim toni toll la ci ahlu lam mhm, mhm. parce que mbeur la bo xamanteni sa yu ñewé dina indi état bu baax dina indi forme bu baax dina indi dina dina def yëfi mbeur wala diko mhm. ñaal quoi. yalla nako yalla lafal cat. limu jëm yalla may ko ci ndam. kimi beurel nak mom da leena xam ndax dafay dugg ñaar yoon. non non non leen bagage ah. ki beurel ak ki beur bokul dal bokul de. ñoom seen. bon yow ah Eumeu Sène bu ne bëreet balaa xalaat Sa Thiès defaral ko. du yàgg sax ci kàddu yi lay wax nii li nga wax nii yomb na de. non loolu mooy am sax. loolu ngeen loolu wax ci Balla Gaye 2 de. te gis nga lam mujjee. Salif ci Balla Gaye 2 kan. Balla Gaye euh, sa. waaw non Balla Gaye 2 Eumeu Sène Balla Gaye. Balla Gaye 2 Eumeu Sène Balla Gaye ak Eumeu Sène ak Sa Thiès ak Eumeu bokkul. ok waaw bokkul quoi. Mhm. Mhm. ma bokk quoi. saa moo dàq bëre wala lan la non Balla Gaye day daa am sañ-sañ ba mu ëpp quoi. waaw par rapport ak Salif am na sécuriser ci ci làmb jooju quoi. Uh-huh. te làmb jooju Salif du ko du xool sax loolu di am. Salif du xool loolu di am. mais li muy def defoo ci ci ay bërëm dafay bari. non non yooyu moom Sa Thiès defoom defoo yooyu moom du ko moom la mën a waale bëre loolu mënoo ko dindi ci moom. Hmm. waaw loolu mënoo ko dindi ci moom waaw. am na maîtrise am quoi. ok waaw mbër muy def mbër muy def ay défaut di jëflante koo xam ni dafa am conscience su bëre. Mhm. dafa tey ci bëre moom Eumeu Sène te gis nga lim def Tapha Tine bu yàggul dara door ko ba gars yi yaakaar ne kaawte na. waaw mais te loolu mësu koo def. champion boobu Tapha Tine mais lamb la. lamb lamb noonu la mais ni ni ni Eumeu Sène arrangé na ko. daf ko arrangé ok daf ko arrangé boobu moom arrangé na ko. Mhm. waaw saaf daal koy ñaan yàlla ko yàlla may ndam di ñaanal Balla Gaye 2 na ko mhm. yàlla may ci li mu jëm. ok waaw di ji lamb ji nga jëm bi nga jël. moo gën a garaaw sax sa combat ak Boy Niang. ah waaw. moonte ñëpp dañ ko ko yombalal de. billaahi wallaahi wa taala làmb ju mu jël moo gën a garaaw combat mook Boy Niang. Tapha Tine. waaw mook Tapha li ko mën a rey mi ngi fii ci géejawaay. li mën a yàq làmbam mi ngi fii si géejawaay. waaw li ngay wax làmb jooju dafa laaj. dafa laaj violence ci moom. laaj laaj nekkaat beneen Balla Gaye 2 bu ci bëggee am ndam. ok ah, bu si bëggee am ndam. waaw mu jël ay matuwaay yeneen ci boppam. vigilant quoi waaw jëlaat yeneen matuwaay ci boppam. parce que am na pion yoo xamante ni. Mhm. xam nga pion bu am doole neexul neexul neexul yëkkati. waaw waaw pion bu am doole yor ay doom fii. doom yoo xam lu mu leen defloo ñu def ko. Mhm. il faut que mu vigilant ci làmb jooju pour bu bëggee am ndam. ok mais lu waral lu waral nga nga indi baat boobu. indi baat boobu li waral ma indi ko man xam naa ko moom xam na ko. Balla Gaye 2 xam na ko man xam naa ko ñi may déglu xam nañ ko làmb ji il faut mu vigilant ci. Mhm. am ci ñu bëri ñoo xamante ni sa lu ma lax dina leen écarter si boppam loolu moo koy may ndam si làmb ji làmb ji su si defee fay rek baaxul si moom man nag du ma magum waxoon naa ko. waaw du ma magum du ma magum xamoon naa ko magum waxoon naa ko laa. ok waaw. <laughs> waaw kon na koy ragalal ci ci ñi mu ak ñu mel noonu. saay-saay bu am xaalis te bëri pexe. waaw il faut nga vigilant doog see génn wax naa nag ay wax moom na ma dégg. saay-saay bu am xaalis saay bu am xaalis te bëri pexe. waaw saay-saay boobu ku muy jàppale. Tapha a wala non oh, non dama ni man li may wax nii. man uh-huh. waxuma saay waxuma li may wax ni uh-huh. waxuma kii demb waxuma Balla Gaye de su déggee lii. wala keneen ku dëkk géejawaay dégg dina xam lu may wax. bala gay 2 bu vigilant wul du gagné lamb lamb ji lay gën a réer ci ay lambam. lamb ji lay gën a am problème ci ay lambam man nag sama wax du ma ko nëbbu dama koy wax ñëpp dégg ko. Mhm. dama koy wax ñëpp appareil lu ci am ñu xam man toogoon naa fii ni géej géejawaay jubóowuñu ku ci nekk naa ma nii ak naa. Mhm. loolu moom moo fa am. Balla Gaye na combat bi mu jëm isam lu max su vigilant wul ci lay gën a réer ci ay lambam. na vigilant xam bu baax. pion bu am doole te bëri pexe. soo visionné wul mën na laa mën na laa indil por jafe-jafe. ok waaw. mi ngi lay dégg moom Omar Sakho. waaw Balla Gaye 2 démb nag def nañu face to face ñoom ñaar. nga gisaat Tapha bu dëgguwaat ci ay waxam. barke Seydina Mouhamed Balla Gaye suñ ko reyul jéemaluñ ko dara. mu ànd ak tranquillité am Balla Gaye ak Tapha Tine du combat. ah waaw man Balla Gaye xam naa ko bu baax. mais gis nga bis bu mayee benn faay. làmb ji lay gën a réer ci ay làmbam. man li may wax du ma ko nëbb damay wax. direct moom mu xam li may wax. loolu moom yaa ngi ciy sax. voilà non moom loolu nag mu xam ko. Mhm. waaw làmb ji na ci vigilant xam ci neneen nu muy doxee sinon lay gën a gëlëm lay gën a dof ci yeneen làmbam yi mujj yi mu dof nii bii la ciy gën a dof. ok waa ok waaw. loolu am na solo dafa jël combat bi ñu bari ni euh, ñu bari ni waruñu koo jël. Mhm. peut-être Tapha Tine moom moo ëpp doole ak Tapha jamono yii mu nekkee nii pour dëkku ko du yomb quoi. Balla Gaye néew doole. bala Gaye deful lenn. Mhm. mais ngay bëre. booy gas fukki nit di suul pax du am. man sama wax du neex. sooy gas fukki nit di ga ñin ñoo koo xamante ni mën na yend yow ci yow ba ngoon. Mhm. di la wan ni dama laa bëgg te bëggula loolu noonu boo amul say boo amul say matuwaay doo ko xam. Mhm. soo amul say matuwaay doo ko xam doo ko mës a xam. Balla Gaye 2 su jëlul ay métuwaayam mhm. ba mu dalee bëre ba léegi lamb ji lay gën a dof lamb ji lay lay ci lay sax moom ci la naan day bàyyi lamb il faut que mu am violence ci boppam. kon bàyyi lambam ci lamb ji. ci lamb la war a ak te mhm. lambam ci lamb ji la war a nekk. ci lamb ji lay nekk. te ci làmb ji lay nekk. ok voilà. ok mhm. dafa am dafa dafa jël communication bu bees léegi dama koy nappaaje. loo wax ma ni moom nappaaje su ma nee puusal ma puus. Tapha Tine si boppam ñemewul Balla Gaye. ah Tapha si boppam. ak ñemewul Balla gay 2. Eh, foo teg loolu. billaay wallaay wa taala Tapha si boppam ñemewul Balla. mais gis nga nee naa ko ku am alal te bëri pexe ku mën a ku mën a muñ te te te ku mën a muñ alalam rek moo mën a dëkk moom. te ñun fii ñu nekk nii. bëgg nañ xaalis dañuy jaay seen ngor. ko fi ñu dëkkee ñun bëgg nañ xaalis dañuy jaay seen ngor. mag Balla Gaye 2 su amul visionnaire ci combat bi dina bëre ba pare. isamlo am lu ko metti lool ci boppam. mais dama bëgg nag wax ji leer nag. ñu nit ñi comprendre li nga parce que nit ñi. am na bu lay seetaan yow wuy ma yow yaa xamul li may wax. mais Balla Gaye su gisee li may wax moom xam na lu may wax. Balla Gaye su ma gisee moom xam na lu muy wax xam na man li may wax géejawaay ku géej géejawaay nekk doomu géejawaay. waaw gëm Balla Gaye xam na lu may wax. Balla Gaye su deful vigilant su baree ba pare moom ci lay jugee mu bàyyi làmb. billaahi wallaahi wa taalaay ci lay jugee moom mu bàyyi làmb. ok waaw man nag isam lu ma sama dëgg. fu ma fekk dama koy wax soo tëroon paaka di ma reen dama koy wax. Hmm. xam nit ñi dañ ma bañ ci lañ ci dëgg. man ci dëgg laay dee. ndax man dëgg laa dëgg laa du ci dëgg laa dund ci dëgg laay dem ba ba may dee. su ma même bu ma amul ñaar dërëm ci dëgg dëgg laay dee. Balla Gaye 2 soo gisee boo ko gisooy nga laaj ko man duma toog moom di ko raay di ko jay non non amul doomu aadama bu taxam ma toog di la raay di la jay amul. man su ma toog yow li ma la war a wax laa lay wax li ma la war a wax duma la ko wax. Mhm. su ma demee ba xam ne li ma la wax arrangé wu ma nag ma arrangé wu yow man ma toog sama kër. fii am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàlla mooy buur. man amul len loo xamante ni dama ko dama ni ko su visionnaire wul ci làmb ji barke Serigne Touba Mbacke su bëree ba pare dina dina tal leneen lu dul bërewaat. waaw te moom nag su ma déggee xam na lu ma koy wax bu baax. waaw loolu am na man bu ma demee ba dem police nit ñu yëkkati nit jox ko cent mille francs pour mu pour. waa wax baaxul. loolu loolu am pour ñu témoin ma man. waaw lu ma la baax. Uh-huh. ngir lan ngir sànq ma. kon man li may wax man maîtriser naa li may wax bu baax man li may wax dama ko maîtriser bu baax te billaahi wallaahi wa taalaay ni ñu wax problème boobu noonu la demee demewul noonu dama noonu dootuma si waxati mais ku àttana ku àttana jaay nit wala nga àttana jaay sa ASC wala nga àttana jaay sa mbër man ngaa jaay keneen. ok waaw. Mhm. te man toog naa ñu xamal ma ni ma wax nañ ma ni ma xaalis moom ci dëkk bi xaalis rek moo fi dox. mais dañuy fàtte yàlla mu ci mujj fa ñu mujjee ci suñu borom. ñun ñëpp fa la ñu mujjee lépp dina leer. Mhm. waaw. suñu borom nag mën na laa may ba nga bew. mais ëllëg mën na laa xañit ba boo lekkee da laa da laa yekkal. adduna mhm. moo bindoon man nag du ma ci baadoo la ci ci ñàkk ngor duma ma ci amee mukk. suma mhm. ci naree am yàlla bu ma yàlla may ci ngor la ma yàlla di maye. man noonu laay dundee. ni ko Balla Gaye de gën a vision laal loo gën a vision laa doyul. Balla Gaye de ubbil bët loo gën a ubbi say bët doyul làmb ji su jaree yow ak yow ak yow ak sa rakk ak keneen ak keneen ngeen dem pare ji ko ngeen dem pare ji ko moo ëpp doole fuuf. ok làmb la joo xamante ni man xam naa bu baax li ma lay wax. xam hmm. naa bu baax li ma lay wax. Hmm. waaw. mais Balla am na nit am na nit koo xamante ni. moom mu def lu bon ba am li mu bëgg moo ko gënal fuuf mu def lu baax. kooku fu mu ne. non non yow booy. man li may wax ni da jox média may wax. ah mais moo tax su ma waxee non dama ni man li may wax dama la Balla Gaye 2 xam na lu may wax. isam lu ma la baax gis nga tey jii man. Mhm. su ma toogoon ak nit kooku damay jàkkaaroo moom ni ko yow. mais nit du tudd nit ci ay média. non pas tudd loolu non déglu ma danga ma wax li ngay wax nii isam lu ma la man duma ko def. man li may wax dinaa ko wax isam Balla Gaye xam na lu may wax ñi may seetaan xam nañ li may wax. Mhm. barke Seydina Muhammad Rasulullah am na nit koo xam mën na génn dix mille dix milliards milliards pour nit yàqule nit da koy def. waaw. Hmm. man mi yoru ñaar dërëm yoru ma doon taxale si làmb di kii ñu gàllankoor ma. kon kooku mën naa rey keneen ku man kooku mën naa gàllankoor keneen ku dul man te Balla de billaahi wallaahi wa taala bis bu sàgganee ci làmb ji su si jógee moom leneen lay tal lu dul bëre bëre waat. walla voilà noonu la demee nag. loolu am na solo ban ah. Balla moo war a ñëw. le 21 juillet jëflanteeg Tapha Tine. ban Balla Gaye moo war a ñëw. ban waaw ban Balla waaw Balla Gaye bu pare. ok bu pare ah, comme comme comme ban bu pare. waaw bu kenn duggul. Balla bu lijjantul boppam moom kase ak ay mbokkam. Balla bu dox ci ay kombaam moom kase ay ak ay mbokkam. bu ko kenn jox lenn lu mu laal. na jël combat fay nañ ko xaalis na jël combat mu dem waajali boppam. lijjanti lu muy lijjanti entraîné ñëw. yàlla may ko ndam. mais bis bu jéemee xajal kenn ci esaafam mën na mën na ko indil lu ko neexul parce que jamono duñ toll nii nit ñi xaalis sañuy jaamu nit ñi demeetuñu nit ngor nit ñi demeetuñu nit pour nit am dara ni waaw. nit ki tey jii boo amee xaalis sa bon nëbbu na sa soxor nëbbu na ki yorul xaalis am ngor am jom kooku la ñuy jël jël bon géeg lépp jox ko ko te àdduna joobewul yàlla àdduna doxeewul noonu. ki ngay bañ tey ëllëg mën na la mën na dem ba ba nga ba boo soxlaa mu lijjanti la te man loolu mooy sama gëm-gëm man sama gëm-gëm mooy billaahi wallaahi tôt ou tard yàlla dina ma may li ma bëgg ci lan ci dëgg tôt ou tard yàlla dina ma teg ci voie bi ma bëgg muy voie ban muy voie dëgg man du ma ànd ak kenn saay fen su ma ko nammee def yàlla na ma yàlla rey moo tax ma moo tax may liggéey mhm. moo tax may taqale moo tax may góor góorgóoru di wut dara pour am si dara pour kenn bañ maa sisir ci lenn jamono junto ni ku la mënal lekk mënal la jox mënal la dara fi mu bëgg rek ngay xool waaw. mais ki nga xamante ni yow bu fajee soxlaam yow sa soxla lu mu tuuti tuuti di ko faj kooku du la mën a convaincre dara. man nit mënu ma convaincre ci dara. nit mënu ma wax ba yóbbu ci sama mayan ci dara ci lu bon noonoo man lepp lo may may da nga ma koy may ci dignité ak fulla ak fayda mm. lepp lu may am amal ko sama bop ci dignité ak fulla ak fayda mais yak nit ak wax nit lu bon ak jëf lu bon taxul man may dund lolu ok lolu du mësa nek ok voilà. lolu am na solo begna ci yow lan ngay lan ngay tagato wa di tag du nuyu Sénégal rek du nuyu ahlul lamb mm-hmm. di waxat Balla gay xolatal bu baax fi ngay tek fi ngay tek sa tank mm-hmm. xolatul baax parce que lamb ji nga jël lamb la joo xamanteni pion ak pion la pion sur pion. pion fële pion fii. Mhm. bu mu wóolu kenn ci combat bi combat bi lu muy lijjanti na ko lijjanti ay mbokkam. lu muy lijjanti na ko lijjanti ak boppam ak ñi ko doon jàppale ñoom Baye Ndiaye ñooñu. Mhm. mais amul lenn loo xamante ni sax parce que dëkk bi moo tas. ni mu tasee mooy tey jii koo jox cent mille franc loo bëgg mën na la ko defal. sàkkamtuma koo jox million. Mhm. man si loolu laay wax. waaw su loolu weesoo di nuyu Moussa Fall Moussa Fall jaakatu diwlin ak ceeb. Mhm. nit la koo xamante ni daf may jàppale. nit la koo xamante ni nit ku baax la. Mhm. nit la koo xamante ni man dama ko yeex xam. bu Sa Thiès Moussa Fall bu Sa Thiès. Mhm. waaw di bëggee Modou Fall. Modou Fall jaakatu blouson. lii ma sol moom ma ko jox. nekk nit koo xam suma gaayen la. sama xarit la ku ma bëgg la ku ma fonk la. nit la koo xamante ni xam nga dalay wax dëgg daal. a di bëggee père ba mhm. père ba suma papa la sama papa lay musa doon parce que nit ku baax la mhm. wa di bëggee ahlul lamb di bëggee képp ko xamanteni ya ngi dund si làmb mhm. di la wax ne lamb mom xama gëm-gëm la rek waaw gëm la gëm sa bop te nit mom isaama lu la loy am ci sa dignité mo gën loy ñak ci sa ñak fayda wa di ñaanal ñëpp di bëggee ñëpp waaw wa